Tijaan yes. Allah, Allah, ya Allah. allah ya allah bëgg nañ la ngir yàlla wóolu nañ la ngir yàlla bay barama bay barama bay barama bay barama bay barama bay barama bay barama bay barama Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye jaarama bay wóolu nañ la ngir yàlla Cheikh Abdoulaye jaarama ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ana bay ana ya Allah ala ala ya Allah kon marhaban bi Cheikh Tidiane amina bil qudami li kawnihi sifa مرحبا بشيخ تجاني آمنا قدام لكون فيه سفاء كيف يعلو بعض الفراق سواء بلدتي غاب بدرها ودياء هاي الدار من البليد البدر ساب واد تبوك فيه ربا في كل قتل وقتل حي معنى به ينال رجاء حي معنى لكل فقر جليل إذا روى من بحره أسياه أي المعنى لذي جدود كرام يا لهم أفغل لهم استحاب أزم كل حمده لامتدادي خار الشيخ وكلهم أولياء أحمد أدنى محمد برآن ثم مختار الأحمد يختار شيخ التجار summa min ba'di muhammadu fakhru qasurat an adraka husama salim adlo abul idi amri salim adlo abu idi amri salim ahmadul humna فاتح ايضا باحمد ابن علي نجل عبد الاله نعم الولاء Cheikhu Tidiane nag lu am ab di jàmbaar ثم إدريس طاب في شناه ثم إدريس ثم إسحاق منه وعلي وأحمد نجبا ثم منهم محمد نجل أبي لا يعمل ذاكم قرما أصل هذا هو الأمام المشنى نجل سبت من دون عين جوزاء ثم شيخ المهادي نجل أبي طالب عمر ذا القوم شرفاء حقق نسبة الإمام إليه خير قلق فيشبت الانتفاء ثم رج لحيا بدار بزرع مسقط راس الشيخ باقتداء Cheikh Tidiane mawlidul xatmi Cheikh Tidiane mawlidul xatmi Cheikh Tidiane mawlidul xatmi Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mawlidul xatmi oo oh, ma naxim da jalla sayyidan taa'iran sayyidan taa'iran wa huwa zukaa متربى بين الابين نجيبا مرقد العيش تغدو اعداء شيخ تجان طيب النفس والفي علي عذيبا حسن الزق بدون نجبا عن شيوخ من دونهم كرماء Cheikh Tidiane suma daqat Cheikh Tidiane suma daqat nafsul imaami li ilmi yaa laa himmatul aliyaa معلوم ثم ربي أختلع ما يشاء شيخ تجان شيخ تجان شيخ تجان هذا شيخي بحور كل علوم كلا ترك شعوي علماء منقول الألوم ومنقولا ويؤتي في قلبي أدواء شقلا شق تجان شقلا شق تجان شقلا شق تجان شقلا نفسا قلبي ذات مولا ناشطا في عبادة الأعداء علمك بعد علومه ثم ربي أعطى له ما يشاء شيخ بجاه قاس شيخي بؤور كل علومه كلا أندرك شاوي شيخ بجاه عالم مقل العلوم ومنطوق لن ويؤتي في قلبه أنور تجانا عالم مقول العلوم ومقتولا ويؤتي في قلبي شيخ تجانا شاقلا نفسه البطاعة مولانا ناشطا في وهو يرنا شيخ تجاد وهو يرنا شيخ تجاد وهو يرنا Cheikh Tidiane wax wa yaranoo Cheikh Tidiane wax wa yaranoo wax wa yaranoo wax wa yaranoo wax wa yaranoo Cheikh Tidiane maqaama kulli baridin wa bihaza tafawatan wa samaa لما أطل makkina Cheikh Tidiane oh makkina Cheikh Tidiane oh makkina Cheikh Tidiane oh makkin jalaa u shaykhil faasi قصد علم حديش نعم الجزاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله wooyu bay la Cheikh Abdoulaye wooyu bay la ilala xami leen yàlla a dee yàlla kenn ku xamul yàlla ku xamul yàlla ku xamul yàlla ku xamul yàlla lakk waylu yàlla kenn coy yàlla ñun waa kër baay ñun waa kër baay ñun waa kër baay xam nañ yàlla ñun waa kër baay xam nañ yónnent ñun waa kër baay xam nañ seexu tiijaan te ñoo de baay ñoo de baay ñoo de baay ñoo de baay ñoo de baay ñoo de baay ñoo de baay yàlla Allah Allah baay Allah Allah baay Allah mooy sikki mandi udriku man mada udriku man mada udriku man mada aram aram na leen afutu man baqa billahi bay raw na leen udriku man mada أدريكم المدى أدريكم المدى أدريكم المدى أدريكم المدى أرى ما لو نلين أبوتو من بقى بلاي باي لو نلين وإن تسابقا وإن تسابقا رجال أسبقا وإن تسابقا رجال